Assalamualaikum mbokk waa Yaraax jibril job Djibril Diop président ASC Montagne 6 ah, maa ngi nuyu waa Yaraax di di sant waaw d'abord ah, man président ASC la bokk ci comité bu ñuy wax comité de lutte contre la pandémie dans le comité local quoi Hann Bel-Air bokk nekk ci ak ay kilifa yu maire commandant de la brigade des présidents des bàjjenu gox ak ñu bëri bëri kilifa yu bëri nekk man ci comité boobu la bokk bon ñun nag en tant que président AIC bo ministre bi waxee ne il faut que AIC yi jóg wala conseil de quartier yi wala les relais communautaires ñun devons jéem mobiliser le quartier Manam mobiliser les bàjjenu gox mobiliser le conseil de quartier mobiliser les relais communautaires xool nan la ñuy pour jëlee fi feebar pour pour nous baigner a dans le quartier en montagne 6 bon ba léegi ñu ciy dox def dans le cadre de la distribution des masques dans le cadre de la sensibilisation dans le cadre xama defar ay laxasukaay xama nous ne ñu dugg fa daal du ñu toog daal bon benn ñu jekki-jekki jóge ci korité bi bañ jógee ci korité bi rek ñu siburu bon man siburu la ko jàppee woon au début parce que tëdd naa kër ga deux jours yo xamné dama siburu won Eh, vraiment sama yaram di métti sama sama yaram tàng xam sama bopp di métti eh, ma am perte de goût xam nga am l'odorat sama articulation yi vraiment parfois sa guddi gi ma xaw a am problème mu nooy guddi gi quoi bon après nag si la woo l'ICP ICP poste de santé Hann sur lépp lu may wax mun nañ dem vérifier ko parce que kooku kilifa la moom moo jiite poste de santé bu am bu nekk cafétéria ba ma ko wooyee ma explique ko ma ne ko man de dama feebar deux jour maa ngi tëdd kër ga feebar bon siburu laa ko ne dama siburu mu ne ma yan si ngay sentir ma wax ma wax ko si ni may santir mu ne ma kon dinaa woo waa district centre moo ne waa Gaspard Camara pour ñu ñëw xool defal la test waaw mana ne ko nag test bi mun na bañ a doon suñu kër parce que bu doonee suñu kër nit ñi mën gis bon kër gi dafa am corona wala kër gi am na koo xam après coow lu bari parce que fii village la yaraax lañ nekk quoi nit ñi dañuy interpréter du am lu leen leer si laa ñëw dem si poste de santé bi mais à chaque fois bu may dem damay jaar booru géej du ma kenn laal kenn nuyu kenn ba ma ma si poste de santé bi man kase waa Gaspard euh, am ñaari agent yu ñëw defal ma test bañ ma defalee test ma toogaat 4 jours 4 jours laa toog test bi ñu doog ma woo téléphone ne ma test bi génn la da nga positif waaw loolu laa ci am daal après si laa ñëw yéeg ci ambulance bi ñu yóbbu ma jam ñaajo quoi fàttaliwu ma fu ma contacté ku ko am maanaam cas communautaire laa ko jàppee parce que bon xaw ma kan moo ko moo ko wàll xaw ma fan laa ko jëlee dama jékki-jékki tëdd feebar jàppee ne dama siburu dem woo la médecin euh, le chef de poste de l'ICP poste de santé mu boole maa ñu ma defal test quatre jours après test yi génn waaw man daal après dama ne affaire bi xaw ma fan laa ko amee daal parce que mënuma la wax fii laa ko amee. jam ñaajo lañ ma yóbbu woon ñu ngi ma yóbbu jam ñaajo le vendredi le vendredi le samedi le samedi soir. samedi 6 lañ ma yóbbu jam ñaajo le samedi 6 juin lañ ma yóbbu jam ñaajo bon ma génn le 12 maa ngi génn lu 12 juin donc kon 6 jours laa fa am parce que foofu boo ñëwee boo ñëwee ci centre de traitement dañ lay trois jours nga fay def ñu defal la test waaw premier jour bi deuxième jour bi troisième jour bi dangay topp traitement yi di naan ay garab waaw di naan ay garab après troisième jour bi ñu ñëw defal la test. bu fekkee test yi dafa négatif ñu toogaat 48 heures defalaat la test un deuxième test bu fekkee dafa négatif ñu ne la rek da ngay génn ah, waaw en 6 jours wër naa man bañ may woo ne ma dama positif boobu sibiru bi bàyyi na ma bàyyi na ma ba sentiratuma benn kii daal sentir maanaam dara métteetuma woon daal moo tax après bañ ma woowee ne ma dama dama étonné wu lu tax ma étonné wu parce que sibiru naa ba wër daal waaw man man sama bopp parce que tamit man du ma scientifique quoi du ma scientifique ci côté médecine jànguma médecine sama xam-xam màccu ci donc lépp lu ñuy kii parce que suñu problème ñun sénégalais mooy dañuy bëgg a taxaw place médecin médecin bi koo xam ne dafa 10 ans wala 12 ans 14 ans université jàng ko ba am ci xam-xam dañuy bëgg taxaw parfois place am di di koy waxal wala di di di di di koy kii alors ko warul demee noonu tey médecin bu toog jàng ay ati at at gëm yàlla. ragal yàlla aussi wax ne li feebar bi li la lii mooy tax ñu mucc si xam nga donc kooku dañ ko war muna wolu a wóolu war ko mun war ko mun gëm man loolu laa jàpp man sama xam man en tant que euh, en tant que personne li ma kër ga dama ne dama sibul waaw moo tax ba ma defee test ñu ne ma dama dama dama dama positif ba étonné wu quoi mais weddiwuma ko gëm naa ko dem naa faju ñu ñëwaat waaw foofu ba jam ñaajo centre de traitement la y a des lits yoo xam ne a trois la am na lii yoo xam ne individuel la man lii a trois laa nekkoon man ak ñaari personne maanaam ku nekk ak sa lii benn chambre A3 autant pour moi chambre a trois ku nekk ak sa lii bon bañ fa nekkee vraiment bien ñu ngi doon traité traitement bu baax ñu ngi doon lekk bu baax ñu ngi doon naan baax di naan suñuy garab normal waaw aussi tamit ñu ñu ñu vraiment gis amul benn anomalie am na ay xale am na ay mag waaw mais parfois bon nga gis mag yoo xam ne feeru da leen di daaneel ñu leen di yóbbu ay réanimation xam nga da ngay xam ne lii c'est sérieux du ay caaxaan quoi waaw kuñ fa yóbbu woon di nga xam ne lii feebar bi di ay caaxaan dinañ bàyyi waxu caaxaan yi ñuy wax ci quartier yi wala ci jotaay yi Nan feebar bi amul politique la ak yooyu du dugg na fi génn képp ku ñu yóbbu centre de traitement di nga di nga di nga di nga di nga loolu di nga génn ci wax yooyu dal waaw man amu niveau feebar bi lu am la lu am la quoi te aussi damay lancer appel à tous les yaraaxuwaa ñu parce que yaraax lañ dëkk toute la commune de Hann que ça soit wala maris fi benn Euh, lettre boo xam ne dama ko adressé au commandant des euh, de la des gendarmeries de Hann ak Maris ñaari commandant yi pour wax leen ñoom tamit maa ngi leen di vraiment euh, remercier di leen vraiment gërëm ci liggéey bu ñu nekkee liggéey bu rafet bu ñu nekkee ci commune bi parce que ñu ngi liggéey liggéey bu rafet ci wàllu lutte contre la le Covid 19 mooy les deux commandants daal bon ba ma leen bindee ci lettre bu ma bindoon dama leen de monsieur le commandant de la gendarmerie. situation bu am yaraax dafa jéggi dayo parce que situation bi lan la dafa am ño xamné ay inconscient lañ ce sont des gens inconscients et l'inconscience bo xamné dafa avancer parce que nit mënu ma gëm né inconscient weesuwul ñu né la fièvre bi amna mu ray ay tubaab yu béré béré béré béré Europe États-Unis ñëw Afrique nga gis mu dal ñu bëri ray ñu bëri nga né fièvre bi amul te aussi tam ñun ay nit. nekk ay doomu aadama war a feebar di wër nga ne ñun waruñu mën a dal wala waruñu waruñu mën a feebar man inconscient mënul weesu loolu aussi tamit am ñoo xam ne di véhiculer ay messages yoo xam ne naan daa am ñoo xam ne dañ leen di fay te mënuñu wax fan lañ leen di fayee ak ñan ñooy fayaate boo leen tey information day jàll bu fekkee da ngay jàllale information nga ne diw dañ ko fay pour mu ne dafa feebar da nga war a wax fan lañ ko fayee ak kan moo ko fay information day leer mais ay di jàllale ay rumeur ak ay wax yu ñaaw pour yàq lutte bi maanaam yàq lutte bi mooy tey am na ñoo xam ne ay relais communautaire lañ comme tey comité bu ma la wax comité communal de lutte contre la bi tey ay effort la ñuy def mairie bi effort lay def croix rouge ñu ngi ci terrain bi croix rouge ñu ngi ci terrain bi tout le temps di def liggéey bu mucc ayib Sonuji, ci conseil de quartier yi bàjjenu yi organisation communautaire yi daal ñoom ñëpp ku ci nek yaangi def sa rôle di rey sa à la fin am ño xamné ñom gëmuñu lolu ñu ngi tok né fièvre bi amul gëmuñu ko du respecter les mesures barrières parce que gëmuñu ko politique la wala da am ño xam dañ leen di fay donc ça c'est inacceptable stigmatisation bobu man daf ma dépasser? vraiment daf ma dépasser? lu mu dépasser mais man dama xamul ndax nit inconscience mun na toll foofu daal waaw inconscience ndax mun na toll foofu waaw parce que tamit inconscience bobu noonu dafa dem ba jéggi dayo dans les quartiers ba am ño xamné buñu bu sax ragal nañ dem hôpital té lolu moy danger bi amna ño xamné dañuy malade palu duñ dem hôpital duñ naan garab dañuy jékki-jékki wër mais feebar bi lañ la wax amna ay cas asymptomatique lu ñuy wax cas asymptomatique mooy ñoo xam ne bu leen dale feebar bu leen dale du ñu am benn signe dañuy du ñu am benn signe am benn signe buy génn si ñoom mais feebar bi mu ngi si ñoom te dañuy wër di wàllaate loolu scientifique yi médecins yi ñoo ñu ko wax te loolu gëm nañ ko am na parce que am na benn centre de traitement bu ñuy wax géro les cas asymptomatiques foofu la ñuy nekk quoi donc kon ñun lu ñu gëm la lu am la. donc il faut que les gens arrêtent cette forme de euh, stigmatisation qui xamné ne dina pousser nit à ce que hôpital pour ragal nit ñi dafa corona wala dafa li dafa lé quoi non nous aussi trop mais amul solo parce que tamit ñun ñoo ñun ñoo ndaw montagnes Nous ñu ci liggéey nous liggéey bu résultats du ci mais li ñu métti mooy dafa am ñoo xam ne dañuy wër di wax nañ diw dañ ko fay kuy ut popularité doo ko utee ci feebar parce que feebar du jàmm ku ut popularité doo ko utee ci mun nga ko utee ci beneen domaine parce que ñun soxlawuñ popularité suñu liggéey suñu liggéey ak lu ñuy def moo ñu ñun mën nañu may popularité te tey fu ñu toll ci yaraax ak suñu tur fu mu toll loolu moo ñu ko may maanaam acte ñuy posé pour yaraax pour yaraax développé yaraax avancé acte yooyu moo ñu yóbbu sori mais pas di mbubboo lo xam nekul ci ñun wala ñuy jox ay fausse intention lolu ñun duñ dans la vie il faut que ñu soit honnête parce que nit da ngay honnête dal waaw famille bi aussi bon vraiment metti na quoi comme ni ma ko waxé rek comme man numa ko dundé non dem ñoom lañ koy dundé parce que tamit ñom ñu bari dañ may laaj na ma lan mo tax nga corona te wàlloo sa waa gàlle wàlloo seen waa kër waaw man li may fréquenté suñu waa kër sax am na euh, bariwul mën naa ko wax daal waaw parce que li may génn di dox moo ëpp daal comprendre te aussi man responsable naa responsable boo xam ne xam naa man nu may doxee xam naa ni fi may taxawee te fu ma nekk xam naa nu may toogee daal waaw parce que xam naa ne feebar bi lii mooy tax doo wàll kii donc kon loolu danga koy bàyyi xel di koy mën a def ci jotaay boo mën di nekk maanaam ñu sorante un mètre bu ñu toogandoo naan wala bu ñu regroupé wu bul joxe loxo bo rombe nit salaamaaleykum demal sa yoon waaw loolu daal loolu daal dañ ko don appliqué dañ ko doon dundee nekkul woon lu ñuy wax la nii rek dañ ko doon appliqué mu nek si ñun daal voilà moo tax yàlla dolli sutura ci quartier bi parce que mënoon na gën a ñaaw ñu ne ji bi bi wala ay nit yu bëri bu waa da ngay lor nit yi donc yàlla def na ci sutura rek ça va quoi sante nañ ko yàlla quoi message bi may lancé population yaraax bi mooy Hann bel bi yëpp Yaraax Maris mooy tey nu ñu mën a vraiment déglu suñu autorité sanitaire yi maanaam autorité sanitaire yi comme ni ma ko waxee mooy ñoo xam ne dañu dem jàngi médecine xam ko am ci xam-xam ñu ne ñii lañ dénk ñu pour ñu xeex feebar bi ñu ne ñu feebar bi nii buñ ko defee fii quelque temps dina fi jóge ñëpp nekkaat seen jàmm ngir yàlla population ñu ànd ñu ñëpp appliquer maanaam digle digle yooyu médecins digal ñu respectons les mesures barrières aussi tamit une chose moy ñu respecter l'autorité. L'autorité gendarmerie la fi yarax fi askan bi gendarmerie bu nañ leen population bi respecter le couvre-feu ah di suñuy masque éviter rassemblement loolu vraiment bu ñu ko defee dinañ jóge ci coono bu ñu nekkee nii loolu ay dénkaane yoo xam ne man en tant que jeune président ASC Montagne 6 ci dénkaane yooyu laa bëggoon dénk waa yaraax en général parce que tamit coono bu ne daj nañ ko ci boo xoolee defar nañ ay raxasukaay yóbbu ko ci jumaa yi def nañ ay raxasukaay ak ay masque ak ay saabu yóbbu ko ci jaaxa ji raxasukaay yoo xam ne teg nañ ko ci quartier bi ay masque yoo xam ne nañ ko suñu maman yi nekk ci marché bi di jaay ay masque yoo distribué nañ ko borom boutique yi distribué nañ ko population pour ku nekk rek sa doole fu mu toll nga am masque sol ko protéger wu loolu yëpp dañ ko def parce que ñun suñu engagement la ñun ñoo ko war a def waruñu mën ni toog yaacaaral bu état di def mairie di def ñun tamit dañu wara def ñun loolu lañ jàpp donc kon bu ñuy def di def ay effort ku nekk di di jouer sa rôle gendarmerie di jouer rôle mairie di jouer rôle croix rouge di jouer rôle ñepp ñëpp di jouer sen rôle kon population aussi dañ wara mëna jouer sen rôle jouer sen rôle moy ñu jéem déggal autorité déggal ñi médecins déggal au moins les relais communautaires ci sensibilisation bi ñu mëna a Covid bi mu jóge parce que tamit mu ngi bëgg a quoi. le corps médical aussi bon dama len di vraiment féliciter parce que comme ni ko waxé won rek centre de traitement Diamniadio laa vraiment. bon am na ñu vraiment ñu ngi doon toppatoo bu baax a baax a baax a baax foofu am na toppatoo bu baax wax dëgg fa yàlla waaw ku nekk ak sa bàmmeel nag waaw lenn la wax affaire bi lenn la ku mu neex gëm ku mu neexul bul gëm affaire bi méttiwul quoi ku mu neex wax lu la neex ku mu neex wax lu la neex parce que tamit àdduna ku nekk ak li ngay wax ku nekk ak sa responsabilité ëllëg yow yaay nekk sa bàmmeel yow kase kenn du la fa fekk. corps médical bi ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ay fële ñu ngi ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib ñu ngi joxe garab ñu ngi yàlla nag mooy ñëw ñi ci ñi ci génn àddu war ci génn àdduna waaw mais nit ñi tamit ñoo euh, population Sénégal ñoo xaw a naqare gérer rek parce que tamit loolu mooy seen problème quoi parce que du ñu déglu ndigal daal waaw problème bi yëpp loolu la waaw mais daal corps médical bi ñu ngi leen di tirer chapeau ñu ngi leen di wax vraiment félicitation quoi